Daouda Ndoye maa ngi lay nuyu Daouda. maa lay fay di la gërëm voilà euh, Daouda nga nekk membre de la coalition Dundu 17 novembre 2024 moom la ñu fas yéene amal élection législative yi est-ce que seen coalition dana ca bokkam déet pare ngeen ca demam déet. waaw jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal si laaj bi. di wax ne pare nañ ko bokk si élection yooyu nga xam nañ ko datu. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre dinañ cee bokk parce la yàlla dogal. voilà ci loolu rek mooy li nga xamante ne nii mooy li toftal ci date président jàpp mm. mooy président dissout assemblée loolu li ñuy la ndax dëkk boo xam ne dañ a jox cër ci wàllum démocratie Afrique saw jant ak euh, ñu nekk ci àdduna yëpp jox ko cër woon ñoo toll si di dissout lu ñu ñaawlu la waaye nag lu ñu mën a comprendre la. naa ndax mënuñoo jàpp am ay député yoo xam ne seen bopp lañ fi nekkal député yoo ne bu leen faree ñoo fa nekk askan bi ñu ne ñoom benn diw wala diw lañ fi nekkal bu ñu tudd benn tur waaye mandat bi passé gis nañ ko député yoo xamante ne nii bu ñu taxawee loo xam ne intere benn nit la euh, au détriment de l' intérêt sénégalais ñu voté ko alors que ñoom li ñu waxoon def mooy l' de tout le peuple donc loolu bu ñu ko euh, euh, tasee donte ànduñu si sax xam nañ ni am na loo xam te ne ni tamit Sénégal mënut a di doxee noonu wala du wéyee noonu. beneen bi si topp tamit mooy li nga xam te ne nii moom moo jëm si date bi ñu jàpp parce que comme ni nga xam ne code électoral bi nga xam ne mooy saytu doxalinu élection fii si Sénégal ñëpp bokk si ànd téere boobu dafa joxe ay délais yoo xam te ne dañ ko war a waaye gis nañ ni délais yi nga xam te ne ni moom lañ joxe muy dix-sept novembre dina tax duñu euh, respecté dépôt de liste bi duñ koy respecté délai dix-sept novembre bi dina tax li nga xamante ne nii moom moo jëm si organisation yi. ak saytu bi ñuy woowee saytu liste yi donte sax nee nañ mën naa am ñu teggi parrainage délai boobu noonu dina nekk délai boo xam bu xat ak bu gàtt la te ñun jàpp nañ ni euh, parti yëpp ñoo war a dayoo ñoom ñoo war a bokk ay yéene ñoom la ñu war a jox euh, bépp chance boo xam ne ñoom dinañ mën a dem ci élection yi. Mm. donc 17 novembre daal si tënk nekk na date ne date bu gàtt la pour ñi nga xam ñoom ñoo bëgg bokk ci jongante yooyu noonu te jongante muy nag ay jongante yu am solo ndax jongante yi nga xamante ne moom mooy tànn. ñi nga xam ne ñoom ñooy yow cëggulubu yi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy yow baatu hmm. kon baat dat daal nekk na dat boo xam la waaye danañ fexe ñun suñu coalition ñu dem si dem am solo la comme ni ñu dem si élection yi ñu tere ñu te tere bi ñu tere du suñuy coobare waaye loo xam te ñu jàpp nañ ne dañ tooñ dinañ fas takkaayu parce que ay républicain lañ fexe nañ demee si élection yi mais est-ce que euh, comment dirais-je euh, Daouda condition yëpp euh, réunir na pour organisation élection yi nekk organisation bu mucc ay est-ce que seen xel euh, dal na si côté boobu. suñu xel dalul ci côté boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au pouvoir sax ñoom ci seen bopp yàgg nañ fi organiser élection ñoom ñuy wax ne seen xel dalul ci ñuy organiser élection et que dañoo jël ay personnalité indépendante am na ay yu bëri yoo xam ne dañ ko war a régler avant ñuy dem élection parce que problème bi mooy du problème mu parrainage kese kan mooy saytu élection yi élection yi kan moo koy organiser. kan mooy euh, joxe euh, loolu ak yan nit ñoo koy jiite dañoo war nekk ay nit yoo xam ne nit yu impartial lañ donc ñu ngi xaar peut-être fii weer yi ñëw ay nit yu bees yoo xam ne dinañ leen euh, votel wala boog dinañ leen fal pour ñu mën a jiite kuréel yooyu waaye nag il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs balaa nga naan naam ne fa balaa ngay jël ay nit yu bees da ngaa war a jël ñi nga xamante ne nii da nga war a day faj fixer élection da nga war a jël nit yooyu ba pare doog a fixer élection donc naam date bi gàtt na. parce que délai yi moom ñëpp xam nañu dañ koy te ñun li ñu jox mooy dafa am ay opposants yoo xam ne bëgguñu ñu bokk si élection yi wala bëgguñu ñoom ñu préparé wu ndax yaa ngi dégg ñenn si opposition yi ñu ngi préparé wu fan yii dégg ne am na euh, juróom fukki parti ak benn Euh, juróom benn fukk ak ñeenti parti am na ñu ngi dajaloo ñun au niveau de la coalition Dundu ñu ngi taxaw suñu coalition fas yéene dem sa élection yi waaye gis nga ni dafa mel ni dafa am ñoon ñoom ne dañu bëgg a gaawtu gaaw pour mën leen exclure bu ko ah, balaa du le treize octobre boo xoolee dafay mel ni deux semaines la a confectionner sur le plan national nga dem ko loolu nekk na délai bu donc délai yi daal ñun gis nañ ne dafa mel ni dafa am ñu ñu bugg bundu xataal am ñoo ñu bokk si élection yi lii daal lépp tax na ñun ñu au niveau de la coalition donte danañ bokk si élection yi parce que nous sommes des républicains incha allah waaye suñu xel dalul beneen si nguur yi muy doxalee. Hmm. tey ji euh, coalition dund am ay député yan type bu député lañ mën a xaar ñuy jóge ci coalition dund. comme ni ngeen ko xamee rek bëgguñu mukk amati ay député yoo xamante ne ni benn nit moo leen di jëfloo waaye du ñu li nga xam ne moom moo jëm ci euh, njëriñu askan bëggatuñu am député yoo xamante ni buñu demee assemblée dañuy xastaate bëggatuñu am député yoo xamante ni buñu demee assemblée dañuy xeex bëggatuñu dem am ay député yoo xam ne buñu demee dañuy wan suñu doom yeeg suñu population bi ay exemple yoo xam ne ñëpp dañ naan acam dañoo bëgg am ay député yoo xamante ne ni euh, peuple sénégalais moo leen tax a jóg dañoo bëgg am député yoo xamante ne ni lépp loo xam ne dañ koy def rek dañ siy teg seen diggante ak seen borom lépp loo xam ne dañ koy def rek day fekk ne mu nekk intérêt askan wi bu fekkee ne président de la République dafa tas assemblée donte tas bi rafetul waaye pour ñu am ay député yoo xam te ne responsable lañ mais bu fekkee ne dafa tas pour am député yi xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu ñu ne ay député Sonko lañ wala ay député président Diomaye Faye lañ ñooñu moom nekk na loo xam ne lu ñu naxarul ndax Sénégal en tant que grande démocratie woo naa weesu euh, jëf yooyu ni ay jëf yu yu yu tàggatémbe la ak jëf yoo xam ne du tegi ci xam-xam ak jëf yoo xam ne day tax dëkk bi day sooxe ndax benn nit day bëgg dogal leen lu ko sopp wala lu ko neex ni ci ànd moom alors que intérêt askan yi la ñu a jiital mm. donc ñun au niveau de la coalition bi ñu ngi bëgg ay député yoo xam ne ñu jàng jàng nag boo ko déggee du nga dem école kese parce que dafa am xam-xam ak ak jàngale ak euh, euh, yar député yu yaru yoo xam ne même bu fekkee ni jànguñu école waaye xam nañ àdduna te xam nañ lu baax ci seen askan ñu ko teel ko donc nekk député du aajo sax nga am jàng bu sori parce que am na population yoo jàng ne jànguñu waaye ñooñu dinañ am benn taxawaay boo xam ne bu yees la bu ñu leen faram fàccelee leeral leen ne leen lii lañ def pour askan bi ñoom ko mën a dinañ ko mën a nangu. Hmm. donc ñun ay projet yu bari yoo xamante ko def ci assemblée bu ñu amee majorité ba su demee ni député boo xamante ne dañ koy mettre euh, boole ko benn assistant parlementaire assistant parlementaire moo ko xam ne droit la jàng dina mën a député bi euh, loi lan la undu lan lay conséquences ak lan mooy li nga xam te moo koy dimbali mu koy jàppale ci liggéeyam loolu tamit dina nekk loo xam ne dina ko jàppale bu baax bu ko defee ñoo am ay question yoon ne dina intérêt Sénégal dina intérêt Sénégal comme dund gu cher bi war nañ cee wax nit yaa ngi dee ci géej gi comme ñi nga xam te ne ni carotte par exemple dem trois mille francs lu mel noonu Sénégalais yi mënuñ koo ak mënuñ koo dundee question yooyu ñun député yu mel noonu lañ bëgg yor bu assemblée. Hmm. député yoo xam ñu responsable euh, ñu daal di installer lu ñuy wax pôle euh, judiciaire financier pour reddition des comptes naka nga gisee acte boobu nga xam ni régime bu bees bi moom la teg. waaw acte boobu noonu acte bu ñuy rafetlu la parce que ñun comme ni ñu tàmm di wax. Euh, nekk koo xam ni lu nekk nga ne baaxul baaxul comme ñu fi toog ni ñu def ba falu loolu baaxul parce que loolu indi boo mu faloo doo am pexe nit baax na pendant que ngay wax déet nga proposer ay solution baax na pendant que ngay wax déet bu nit ki defee lu baax nga encouragé ko nekk ah lii kat lu baax la parce que waruñu fee nekk pour suñu bopp ndax ñun ñëpp bis danañoo dañu fi jóge te ñu yàgg dara waaye li ñuy fàttalee suñu ay jëf mooy jëf yu rafet yi ñu defoon ak nañ fi taxawaloon askan wi am na ñoo ñu ko ñu fàtte parce que seen bopp lañ fi nekkal ñun nag dañoo bëgg ay député yoo xamante ni ñoo xamante ne ni duñu nekk ñoo xamante ni dañuy dañuy fàtte donc pôle judiciaire bi li ñu ko teg pour réduction des comptes pour nit ki lépp loo xam ne mos nañ ko ko dénk ci Sénégal <coughs> mu ñëw leeral li mu jël leeral zone bu nekk fu mu ko dugal ak nu mu ko def euh, baax na parce que nit ki wañ ko dénk loo xam ñëpp ko bokk mu koy gérer comme ni muy gérer këram wala ni muy gérer loolu nekk na lu ñu jaaxal waaye li ñu bëgg mooy yoo xamante ne nii wala ministre yoo xam te ne leen dénkee alal askan bi balaa ñu leen di ni lii lañ def lii lañ dugal kenn ku ko jéem a def sax di wax bilan mi parcours waaye ñun bilan bi am nañ question yu bëri ñu bëgg a laaj parce que euh, li ñu daal réduction des comptes bi ñu koy def bu ñu am Sénégalu ñaari bopp nañu am Sénégalu benn barki démb jël nañuy wax mbirum ONAS justice war na koo leeral barki dem dégg nga ñuy wax euh, li nga xamante ne nii moom moo jëm ci euh, mbirum Adji Sarr justice war na ko leeral comme ni justice war a leerale ñi fi téye woon nguur gi donc justice ak reddition des comptes warul nekk rek pour traquer ak bunduxatal ak kokkatal ay opposants waaye dafa nekk pour ñëpp comme ni ko constitution waxee Sénégal Sénégal yi ñëpp la Sénégal ñëpp ñoom ñoo tolloo devant la loi amul Sénégal loi bi ak Sénégal loi bi Sénégal yi ñii ak Sénégal yi waaye réduction des comptes boo na jaar na leen waaye surtout ñu leen di xaar si liggéey ndax loolu gën a intéressé Sénégalais yi plutôt que ñuy def li président Macky Sall defoon li président Macky Sall defoon na ko wàññiwoon na dund bi ba muy doolee tàmbale bu dund yi mujjee na yokku dafa ne réduction des comptes topp fa ay ay ay ay comme politique yoo xam ne dégg dem fi ñu mujjee mooy dara mëntuñu leen toppee dara donc loolu dafa mel ni tuur lëndam ak a euh, jublu a am na zone :fra yoo xam ne ndox dañ leen war a nandal askan wi ñu ngi nekk si inondation askan wi ngi def immigration clandestine loolu yëpp ay question yoo xam ne ñu ngi ciy xaar gouvernement ba àdduwu ci lu dul mu ñuy proposé réduction des comptes lu baax la waaye na jublu si ñu xam ne mooy tax sénégalais yi gis seen bopp. Hmm. bu ñu sukkandikoo ci fonds monétaire international Sénégal mi ngi si situation économique bu doy waar te at yi di ñëw si kanam aussi dafay gën a métti naka nga euh, gisee li fonds monétaire international wax est-ce que yëg ngeen ko wala sentiroo leen ko seen côté. waaw loolu moom li Fonds monétaire international wax moom yëg nañ ko santé nañ ko parce que Fonds monétaire international wax dafa am ay euh, kuréel yoo xam ne kuréel yu xarala yi nga xam li li seen liggéey mooy ñu fexe ba xam jumtukaay yi nga xam ne mooy tax dëkk mën a développé comme ay IDH indice de développement humain est que sénégale bi mi ngi dund mi ngi lekk mi ngi naan loolu moom question buy intéressé Sénégalais yëpp la ndax dund gi dafa gën a cher nguur gi toog ba ñuy doogee agsi wàññi nañ fi dund gi ba ñëpp tàcc tàcc waaye liñ si doon euh, ñaawlu mooy fukki dërëm ak cent franc xamoon nañ ni Dubaï gis nga léegi ni kilo karaat jóge na sept cent dem trois mille franc euh, sénégalais ñu ngi seen kër ànd ak seen ngor waaye ñu ngi nekk di souffrir am na ñu gëm nguur gi ba tey mais am na ñoo xam ne ni commencé nañ découragé donc dëkk ni nga koy yoree léegi mu wax mooy dëkk dafa am li ñuy wax tableau de bord am ay indicateur dëkk balaa nga koy yor da ngay am li ñuy wax vision nga man Sénégal fii laa ko jëlee fii léegi laa ko jëmee waaye fii léegi juróom fukki at Sénégalais bi di war a dudd di war a ñëw dañ ko war a sóon nii ak nii la ñu war a def loolu gisuñu ko euh, lu doy ni benn déclaration de politique générale bu ndaw nga xam ne président de la République moom moo définir maanaam fan la fan la dëkk bi jëm premier ministre exécuté ko coordonner action gouvernementale bi ñu ne ko kaay nga def déclaration de politique générale muy naxasaale bi dinaa ñëw duma ñëw tas nañ assemblée tas nañ assemblée ñaaw na si président mu jàpp jàpp jàpp datu déclaration de politique générale alors que ñoom si mu mel ne li ñu gisoon si nguur gi moom mooy nekk ba tey parce que sénégalais woon dañoo bàyyi dañoo arrêté di leen nax euh, ñaaw na si ay kilifa nga ne dinaa def déclaration politique ndax yow li nekkoon sa xol ak sa xel mooy nga tas assemblée donc bu ñu oytuwul li dal yenn dëkk yi dinañ jàll parce que manager c'est prévoir maanaam booy jiite da ngay xam fi ngay teg sa tànk nga teg ay tableau de bord am vision fexe di doxal vision ba pare di am ay indicateurs yi lay permettre ngay mesurer mi ngi mel ne nga am boo xam ne da nga si def essence doo con doo contrôler ndax huile bi na ndax ndox mi manqué na ndax mi ngi daw ndax euh, frein jàpp na bu yàggee euh, boo moytul dina mbëkkante kenn wala nga def njombe wala musiba Sénégal jamono ji foofu la toll donc ñun gis nañ ni li kuréel international comme ay fonds monétaire wax war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que en tout cas lu mën te xew daal mooy sur le terrain ak ni ñuy dem chaque jour si Sénégalais gis nañ ni mënd bi sonal na leen immigration def nit yi tund euh, bi cher na doon dund te salaire yi ba léegi dégguñu ñu yokk mu nekk autant dagge gaa yam demee war nañ cee bàyyi xel balaa musiba mbaa ba kumba diñ dal yàlla bu yàlla def lu hmm. dernière question Daouda la am ca ndox mu bari mi noo ko gisee waaw li ñuy ñaawlu rek mooy li nga xamante ne ni am na ci Touba parce que Sénégal surtout yenn dëkk yu mag yi euh, war nañu dépasser stade yooyu noonu parce que comme ni ma la wax manager c'est prévoir loolu nag du fotu nguur yu fi nekk waaye am nañ ci responsabilité si ñaar nguur gi fi newoon nee na dugal na sept cent cinquante milliards ci inondation loolu xam nga yéen woon maanaam par rapport li xew donc ñoom hérité nañ li moom moo xew waaye ba ñu doogee toog def na juróom benn weer bu doon ba ñu toogee ba nga ñuy wax coowal ONAS bi ak jël nañ fa xaalis jëm ñu fa a def appel d'offre bi ñu waxoon jël ay nit yoo xam ne ñu jub lañ ñu ràññee si maturité kenn du leen mën parce que kooku bu ñuy jiite ñun jiite ñëpp danañ xam ne kii moo ñu mën moo tax mois avant lii nga bi xam nañu inondation dafa war a ñëw loolu mooy prévoir nga fexe cuire foos yi def liggéey bu mucc def li nga war a def inondation mën ñu ko dindi ci benn fan waaye mën nañ ko wàññi bu nekk war nga am benn wala ñaari priorité ci sa mandat nga ne man day su ma fiy jóge Sénégal dootul manque courant man day su ma jóge Sénégal dañuy suul mbirum inondation yi barki démb Allemagne fekkee nañ trente deux yoo xam ne amul coupure courant ci dëkk bi Sénégal boo xam te ne nii nee ñu ne deuxième wala troisième euh, dëkk économique la fii ci Sénégal ba léegi ni ngi am inondation kon dëkk boobu noonu li muy dugal si koom ak ci xaalis ak immigré li muy dugal ak màggal gi li muy généré sur le plan économique kon ba léegi nekk na loo xam ne lu tàggatémbe la loolu nag du futu kenn lu dul ñu fi nekk si nguur gi ñi nga xam te ne dañuy dégg dara te duñ ko def ñi nga xam moo leen gënal euh, askan yi ñi nga xam te ne ni am ay député yu ñu moomal seen bopp moom moo leen gënal askan yi ba tax ñoom li ñu war a liggéey liggéeyuñu ko li ñu déggee woon defuñu ko donc inondation yi daal ñu ngi koy ñaawlu waaye war nañ jóge ci loolu te loolu lépp du ay jinne ñooñu koy defal ay nit ñoo koy def te pour ñu mën koo def il faut ñu prévoir ko. merci Daouda Ndoye ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen fay di gërëm euh, auditeur ak auditrice yi ñuy déglu. voilà Daouda may fàttali ni yaa ngi bokk ci coalition euh, dund ñu lay remercier encore une fois jërëjëf. waaw maa ngi lay remercier di la fay jërëjëf ci jërëjëf.